Serigne Makhtar. Serigne Makhtar. yow yàlla moo lay fayal boppam. Serigne Bassirou nee na yow yàlla moo lay fayal boppam. dëgg la de. ndax sa taxawaay. ndax sa taxawaay. li Serigne Touba ñaanoon. nee na la Serigne Touba naanoon. ci Touba. ci Touba. moom nga ko defal. nee na yow loolu nga defal Serigne bi. wajahalahu. wajahalahu. tahban. tahban. maskana taallumi. maskana taallumi. wa mawdi al fikrati. wa mawdi al fikrati. wa tafahumi wa tafahumi yemoo ci loolu nee na yemoo ci loolu wal tusbitan wal tusbitan fiihi fiihi jamaatan jamaatan tuqimu salaat tuqimu salaat tuqimu salawaat tuqimu salawaat tëhban tëhban yaa hakim dafa ñaan boromam. dafa ñaan boromam. sama dëkk bii sama dëkk bii. di Touba di Touba. na doon dëkk na doon dëkk. bu ñuy jàngee alxuraan bu ñuy jàngee alxuraan. di ko fi mokkale di ko fi mokkale. waaye bu ñu ko mokkalee ba pare. waaye bu ñu ko mokkalee ba pare. jàng xam-xam jàng xam-xam. ba peg ko. te Serigne Mat Saxir Lo. te Serigne Mat Saxir Lo. kokki kokki. daf ñoo jàngal. daf leen a jàngal. alxuraani kese. alxuraani kese. dafa mel ni. dafa mel ni. ka masalil ximaari. ka masalil ximaari. yaxmilu. yaxmilu. asfaara asfaara. tey sëñ Maxtaar jenn saa waaji. barki Serigne Touba Mbacke. bi la sa maam Serigne Touba waxee loolu ba pare. nee na bi la sa maam Serigne Touba waxee loolu ba pare. nga ubbi daara nga ubbi daara. yemoo ci yemoo ci ba ca topp ba juma mooy juma wala jàkka wala jàkka nga ñëw nga ñëw tabaxal ko tabaxal ko juma juma ndax almada al almadaarisu ndax almadaarisu xabla almasajida xabla almasajida bu école bu école yi amul bu école yi amul jumaa yi du mën taxaw jumaa yi du mën taxaw ndax ñi dem ci ñi dem ci jumaa yi. ndax ñi dem ci jumaa yi. ci école yi la ñuy génne. ci école yi la ñuy génne. kon kuréel social jërëjëf. kon kuréel social jërëjëf. nee na jenn kon. ñu ngi lay sant. di la gërëm. di la gërëm. yow sunu xarit. yii nee na yow xaritam nga. di suñu soppeeku. ci soppeeku. di nit ku yàlla baaxal. di nit ku yàlla baaxal. lee nga def ci Touba. nee na lee nga def ca Touba. kuy sa xarit. kuy sa xarit. wala muy sa soppe. wala muy sa soppe. wala mu bëgg la. wala mu bëgg la. da ciy puukarewu. da ciy puukarewu. da koy tiitaroo. da koy tiitaroo. da koy ndamoo. da koy ndamoo. ndax dafa jàpp ni. ndax dafa jàpp ni. boppam la ko defal boppam la ko defal. kon yàlla na la yàlla defal jàmm. coow li nag mën naa bari. nee na coow li nag mën naa bari. waaye man xam naa. waaye moom xam na. sa diggante. sa diggante. ak ak président de la république. mai 2012. nee na mai 2012. bi mu gañee réew. bi mu gañee réew bi. bi muy dem Màkka di umra. bi muy dem Màkka di umra. avion ba. avion ba. maa ca dugg. nee na moom mii moo ca ak yow Serigne Matar Dieng. lam la wax. nee na lam la wax. dégg naa ko. nee na dégg na ko. xam na ko. yow wetam gi nga nekk. nee na yow wetam gi nga nekk. jaayoo ci sa ngor. jaayoo ci sa jaayoo ci sa ngor. jaayoo ci sa dignité. jaayoo ci ci kenn. nee na galgaloo ci kenn. te lépp day jeex. te lépp day boo ko doon def. boo ko doon def. bu ma teewee na moom bu teewee fii. am naa fu lay maye pat bi. am na am nay fu lay maye pat bi. wax ak yow li mu seq ak yow. wax ak yow li mu seq ak yow. te yooyu duñ dugg. kon jërëjëf Dieng. nee na ñu jox Serigne Makhtar Dieng pour social mu sànni ci kat. nee na deux minutes rek masana ngeen may ko ko Serigne Makhtar Dieng pour social sànni ci ay kat. bu paree. di jiital ci nuyoo bi Serigne bi di la nuyu bu baax di sant yàlla di jégalu bu baax am amuñu fi kàddu te yow sa kàddu mooy sunu kàddu kon. comme ni nga koy faral di waxee rek laata xool bi tax na kale xanaa comme defoon nañ ko ban koy taxawal <laughs> ni ngi dund ba léegi te bis bu ne gis ne ñu gën a yokk ñu bàkkee loolu ndax dañ koy taxawal ci ci ci njëkk yi hmm. bokk naa ci ñi fi yëkkati woon kat comme ñu ngi koy def ba léegi 2004 ba léegi nag yàlla dina may wér ak kon ñu dugal ko foofu ndax jigtaay la ci ñun waaye sa kàddu moom doy na sëkk kàddu yi bokk yi fi doy na sëkk te ñu ngi suivre lépp ndax actualité la bu am solo boo xam ne bu fi ñëwul it waxtu wu bu jotee rek man yitteel na ma ba bu waxtu wu bu jotee boobu bari yor mi problème fi li ma ci raw du bari gis naa ci nag lu am solo ren loo xam wax dëgg yàlla ñu la ndax ni yi ma gis sax nga mool ko di ci xam nga ni wax day day day day day dem ba day raaf yokk bari waaye bind dafay des hmm. kon nag loolu moom boo ko bis bi dara gënu am solo loolu taxawaay bu rëy la boo xam gis naa ko ci ci liggéey bi jàll di nuyu ñëpp di nuyu ñu ma fekk ñëpp di suñu wëlal ndax dañoo bokk ñu dañoo dañoo bokki ñu ñu jaxasoon am na ñuy nuyu ñëpp mu jëlee nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Abdoul Mouhous ak Serigne Abdoul mu tegal ñu ko ci mbokk yi fi nekk yëpp soppe yi wëllëre su ma jëlee ñi nga xam ni noonu ngeen ko tuddee ñooy ñi nga xam ne fu ñu toll di feeñal bu baax ma jëlee nuyoo teg ko ci sëñ Maam Cheikh Anta ak sëñ Manou Lamine ñoom si ñax si ngeen tegal ma ko ci loxo yëpp ak mbokk yi nga fekk yëmal fekk yëpp di nuyu Baye Ndiaye ñu ko waxee ak ndax ñu def iraanga ju am solo ndax loolu moom lu am solo la loo xam ni falaa tu'addu man ra'aytum fa ilaha illallah ntu wala loo wax de su fekkoon te ni gën a gën liñ naan sëriñ bi njaboote ak boole waxul sax ci tarixaat li ñu bokk ci deret ak li ñu bokk ci jëflante bu baax waaye kuy kuy wax rek laa ilaaha illallaah lu ko def noonu mhm. man ñoom ñi fi ñu bokk waaye mel na ne fa ñu bokk lañ fay jëf tiraanga jooju sëñ Bas ñu ngi lay seedeel ni man yët jël nañ ma màggal Tuubaa lu mat ñetti ñetti nag ci ñetti ñetti at te toogul kon yàllaa tax ñuy def xam nga nit ki nga xam ne yaa ngi koy jëfal sax te toogul xam ne dañ maa seen rek wala ñu gis ma waaye ñu ngi koy def ba ren ñu ngi koy def te wallahi jataay boobu sax ak Abdullah su bëriwul xam naa bi seen waajur na rek kon loolu jëf ju baax la di ko di loolu đi nag di ci maa ngi ciy seen sëriñ Cheikh Samb di ko di ko jaarale ci moom đi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñu ma fekk sama doomi ni jaay di jaarale sama doomi ni jaay comme suñu Mor Lo yooyu nga tegal ma nuyoo ba ci ñëpp suñu Abdul Xudoos xam ne moom ñoo ko bokk kon am na code cắt bọc doon wax bi nee ma tijjee ko benn code bi moom. ah kon baax na. <laughs> Ah, lépp taw bi la mbàkk. Ah, yow moom li ñuy li ñuy wax ci yow loolu. loolu loolu li wér ndax. bëgg mu solo bu tey. Hmm. te ñu loolu jàpp ci yow ah, diw diw diw mooy fàttaliku almujahidul akbar hmm. waxi tey dafa yàgg. ñu daje Italie Brescia fanaan ci hôtel. man defi ko jamonoy Cheikh Moutala. ndeysaan. nga génn romb la nga woo sëriñ Cheikh Baara Matilé yi. yal na ko yàlla dolli leer te yërëm ko bu baax nga nuyoo dem ak ne ko kii de sama xarit waaye day fanaan ci kurus te waxtu yàq la yooyu nag jógoo ci ba léegi loolu loolu rek lañ la lañ la jàpp. ndeysaan mooy suñu ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine waaye yoo xam nga ni jaxasoo ñëw nga ba sunu kër lu ne lu wax ni nga koy waxee duñ ci wax waaye jëf jëf jiñ gën gën a rëy mooy bis bi nga rombee sunu waajur ci tibb yëkkati sa àll jox jigéen loolu dafa rëy ci ñun lool saa buñ ko dañ dañ la koy xoole ndeysaan loolu jëf yu rëy la ndax amuñu ko dul moom waaw ko teral rek teral na te loolu yëg nañ ko ci yow buñ ko bàyyi xel kon ñu ngi lay ndokkeel ci bis bi waaw bis bi moom ni ma ni ma ko waxee ak ah, mu ne day gën a yokk jërul nag jërul yéem yokk jërul yéem yow da ngay leb koy leb lépp dañ lay fay. xam nga da ngay leb man damay toog ba yàgg sax dama naan est yow yoroo yeneen mbir yi junni wala nangam wax da ngay def li ngay wër moom ci réseau yi ci ci département yi ci bis xeebaloo kenn gisam. déedéet loolu wax dëgg fa yàlla. dëgg la bu ñëpp ñëwee. jël loolu mel loolu mel jël man man ni kay maa war am bis xañ na man ñàkk yi tamit nit ñi ñëw ñu ne ak kii waaye yow moom jël yëm ndax dañ lay fay ndax xeebaloo kenn bu màggal jotee gis nga ni nga koy wëree bu gàmmu fu ne dem fa am ko ci biir mbokk yi kon nii rek la war a mel kon ñu ngi lay ñaanal wér googu yàlla boole nu ko waaw ndax dafay am ñu ñaan ñoo xam ne dañuy jàpp ni dañoo sore te yoo xam nga ne danañ waxtaan bu ñu waxtaan day fekk nit ñi nelaw waaw day day gudd lool waaw danañ danañ wax lu bare bare bare bare waaw xam nga waaye xam naa la xamante ngeen xamante ngeen ñaanal bu baax baax dégg nañ ci lool dégg nañ ci lool dégg nañ ci lool sëriñ bi li daaw ni ma ko waxoon ñu lay sant waaw ah, ndax bu baax li gën a néew mooy dañ ni ca nax ju mooy xarit bu ak mbokk bu dëgg luy néew rek luy néew looloo gën a néew. amul kon nag boo demee ñëwee rek gis la ci wetam. ci jënd waaw liggéey boobu ba nëgë bu ko tàmbalee ba nëgë. macha allah ñu ngi koy barkaal AS moom amul amul ñu du ko cant boppam lay defal. soo gisee man la bi ngay tudd Mouhamed it wa amaa bi ni'mati rabbika fa hadis yaa ko fekk man lam yaskuru naas mm. sunu borom loolu yéen a jàngi woon loolu wax nga ko li tax loolu mooy sunu rakk waaye sunu xarit waaye ku ku am reconnaissance am ak reconnaissance jamono loolu dafa jafe te nit bu baax waaw dama toog ci tabaski ba sama téléphone sonné am ku ne ma Serigne Mohamed jox na la fa xam nga ba ma demee keroog ci jumaa ja moom la ñu xam nga loolu te te bi yam ca teg moo jëf jël jël na jox ma toog naa mu fëgg ma sama kër jël lu jox ma ni ma xam ma ko daan defal ba ma ko defal ko ma ne ko fayal ma. kon la jëf jooju la nit ku baax ka ba mu rombee man ma am téeméeri at muy jëmbat tàndarma mu di ko xool ni ko waaye tàndarma ji ngay jëmbat loo ci jublu te yow doo fekkee njëriñam xam nga ne yow doo fekkee njëriñam ndax téeméeri at ngay dund ak ni mu war a yàggee mu ko dama koy fayee tàndarma yow daal lekk kon loolu nit ku ne war na ko bàyyi kon kon jërëjëf <laughs> nuru bu baax sëñ daal sëriñ Cheikh Abdou soxna muy Touba ak sëñ Fallou ñuy bokk su ma limee dinaa dinaa jiw ndax ñëpp suñuy suñuy wóllëre lañ dëgg daal mënut a weesu bi waaw ah, kon nag gën a gën a li may wax rek bis boobu de man lool rek bara lool rek laa ci gën a yittewoo comme na ma ko tuddee te jamono jëpp bi dafa bàyyi waaye comme na ma ko tuddee ci loo xam ne da nga ko fee di feeñal si baax bind yi lu mu gën a feeñ doyu bind yi lu mu gën a feeñ sax moom bés doyu li nga fiy def maanaam am na solo am solo boo xam ne dajale ci mbokk yi ak ki mu tëriw at mu ñëw war nga gën ren gis naa ñaari bi waaye na gën a bari gën a jaxasoo ndax seen moom la ñëpp a koo yittewoo te ñëpp a war a xam ak liggéeyam bi lay dëgg moom lu ñuy lu ñuy waaw kay macha allah macha allah macha allah dëgg la kon nag loolu moom bàyyi yàlla na ci yàlla gën a taxaw waaw ñëpp say xarit lañu. wargal li nga def ñii rek. wax dëgg yàlla li nga def ñii rek. ñii njaboot gi xam ni ñoo ko bokk li nga def rek doy na sëkk. li lay dëgg la waaw waaw nga leen. fonk nañ lool. foo jëm ñu ànd ak yow foo jëm ñu jàpp ak yow loolu macha allah kon yal na la yàlla kàttanal yal na la yàlla jàppale yal na yàlla def daal bis bi daal maanaam lépp loo ciy def ngërëm li nga ci bëgg sa diggal Cheikh Mouhamadou Lamine Ba bu góor yàlla ya taxawee di takk sa diggal moom mu takkee la ci sëñ Tuubaa takk religion, weil